ca kër gee di l'ARMP di autorité de régulation des marchés publics ñu nemmeeku fa ay yëngu-yëngu foofu nag amna na ay nit ñun fa commencé di dàq tàmbale ko ci directeur bin ñu dénk juridique bi di Cheikh Sadibou Sambou moom nag dañ koo dàq rek ginnaaw bi jàppee ne dafa génnoon ci yéenekaay yi am lu mu wax rawatina yorin wi nga xamante mom la directeur général ba di Sayer ñaa yore googee kër di rek tuumaal ko ne moom lam yor ci ay indemnité dafa xaw a takku lool muy ay tuuma yoo xamante ni moom Sayer Niadé weddi woon na ko jàpp ni yooyee koppar ñu ngi leen denc ci benn compte ginnaaw loolu soxna suñu wax maam jaaraloo moom it dàq nañ ko moom moo nekkoon ki nga xamante ni moom lañ dénk wàllu régulation dàq yooyu ñu fay dàq ñaari nit ñooñu nag mi ngi am rek ginnaaw bi nga xamante ni amoon na kenn ku fa démissionné woon di ab Abdoulaye Sylla inspecteur général d'État la moom sax moom moo jiite woon autorité de régulation bi li taxoon mu tekki ndomba tànkoom bokk na ci ñàkk a déggoo bi mu déggoo woon kilifa yi foofee ca ARMP yëngu-yëngu yooyu nag ca biir ARMP mi ngi tàmbali di gàkkal li nga xamante ni moom mooy deru kër googu rax ci dool buñ seetloon ni googee kër moom mooy saytu lépp lu jëm ci jokkalantey marché fii ci Sénégal mbaadu ARMP moom day digle sangaay te raguwul